wa barakaatuhu yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare kenn ku ci nekk sa tur di leen baalu àq te di leen ko baal di ñaan suñ kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm di ñaanal sëñ Muntaxal Basiir suñu borom guddalu fanam wéral cëram ba naa li mun naa la liggéeyal sëriñ Touba suñu borom kattanal ko ba man ko ànd ak mbokki taalibe yëpp ndaka noonu di siyaare mbokki taalibe yi nga xamante ni ñëw ñëpp ci bis bi te jàpp ci bis bi muy bis boo xamante ni bisu safar la di waajal màggal ah ñu mbokkook suñ mbokki taalibe yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi ñu suñ mbokki tijaan yi ak suñ mbokki xaadir yi ak suñ mbokki laayin yi ah ñu taxaw ci taxawaay bu rafet boo xamante ni wane nañ ni diine ji benn la lislaam ji benn la ñoo ko bokk kon ñun amuñu seen fay dañuy bàyyi leen ak suñ borom mi nga xam ne moo am seen fay ñu fayal leen waaye nag suñu cant ak suñu yéene ci yéen ak li ñu bëgg a wax lépp mënuñu ko wax ndax taxawaay bi dafa rafet boobu ba léegi ngeen ànd ak ñun bis bi ci waajtaay wi ci lépp kon ñun kawe na ci ñun kawe goo xamante ni maanaam suñu làmmiñ mënu koo tudd waaye na leen wér ni sant na leen ba fa sant yam suñu xol yi sedd na ci yéen mu ngi ñaan suñ borom mi nga xamante ne moo ñu boolee te lislaam rek tax ñu ànd suñu borom gën a dëgëral ànd bi gën a yàggal ànd bi ba kenn ku ci nekk li nga yéene sa morom nga mën ko àggalee kon nag suñu xol sedd na bu baax a baax li ci toppaat di ziyaare suñ mbokki taalibe yi nga xamante ne ñoo jugee capital ah ci jëwrinu sëñ Yankoba ak sëñ Bamba mii fi teew ak sëñ maam Thierno Amar ak euh, sëñ maam Xaas ak sëñ Buubu ak sëñ asan Baye Fall ak sëñ Maodo Sey ak mbooleem ki nga xamante ni rek ñëw nañ ci jataay bi jóge ci karawaan fii ba capital ñu ngi tuub kàddu yi nga xamante ni euh, tànk yi ngeen dox ba ñëw fii ndax ñun ay taalibe lañ yoo xam ne yu xeebu lañ kon su ngeen daggee seen yitte ñëw ba fii bokk si ñun ak safar boobu ah te dara warul ko lu dul Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ bokk te mën koo séddoo tànk yooyu rafet na rafetaay goo xam ne ci ñun tey suñu xol sedd na ci sedd goo xamante ni mbooloo mépp ñu ngi leen di jaajëfal te wax ne def ngeen lu rafet loo xamante ni kawe na ci mbokki taalibe yëpp li ci toggawaat di sant mbokki taalibe yëpp ci bis bi mboolem ñi ci jàpp ak waa xitma bi ñi nga xamante ni jàpp nañ ci liggéey bi muy soxna yi amuñu seen fay ndax boobu ba léegi dem ba léegi ñu ngi ci ñoom soxna yi bàyyi seenum xëy bàyyi seen yitte waaye nag sëñ Tuubaa moom képp ko liggéeyal ku ne am na fay kon ñu ngi ñaan ci sëriñ tubaa mi ngeen xamee moom ngeen doon liggéeyal kenn ku ci ne la nga bëgg na nga ko fas sëñ Tuubaa dana la defal ndax ñun day suñ xol dafa sedd sedd na sedd goo xamante ni mënuñu ko tudd wala asim bu nu faatu woon tey suñ xol dal na barke sëriñ Tuubaa ndax daayira bi ku ne xam na fa mu fa mu tolloon mu metti woon lool suñ borom teg ñu ci kanam te ba saa bu ne rek suñ borom dañu defal ndam moo tax tey suñu faatu woon barke Serigne Touba Mbacke suñu xel dal na ñu ngi ñaan suñu borom mu saxal ñu ci lii tey lii rek mooy dëgg te mbokki taalibe yi képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu te nekk ci dëkk bi nga sax ci daayira bi te xam ni nit ki mënta def leen lu gën lii leneen lu nit kiy def te leneen dëppoo lu suñu borom gërëm ak lu sëñ tubaa bëgg pertement rek la koy jëral kon foofu waaye nekk na xam ne liggéey sëñ Touba baa ngi ni ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn tëréwu ko kenn fépp fu waay nekk na ñëw jàpp ci liggéey bi te xam ne ñoo ci yem yàpp wàccuwaay sëñ moom li mu am am na ko ba pare kon nag ñun suñu wàllu bopp li ñu dese mooy liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo ñu dese kon nag daayira bi na leen ko jàpp fonkaat ko te xam ni loolu rek mooy suñu njariñ ndax kenn ku ci ne ci ñun ku faatu sëñ Tuubaa rek nga yaakaar sa àdduna ak sa àllaaxira sëñ Tuubaa rek nga yaakaar sëñ Tuubaa nag kenn mënu koo nax lépp lu waaye di wax te du dëgg sëñ Tuubaa xam na la nekk sa xol kon nag nañ leen dëggal li ñu wax ci sëñ Tuubaa suñu alal bañ koo fekkee suñ doole bañ koo fekkee suñ ñaq bañ koo fekkee alil àdduna fii rek la yem na leen wér ni ko ci topp bàyyi liggéey sëñ Tuubaa bi topp alil àdduna yi daw soo dee da nga ko rëccu kon nañ jël li ñu am jox ko sëñ te xam ne ëllëg fan jëm moom rek lañ fa yaakaar te lan li ñuy am ci liggéeyal sëñ Touba du doy fan jëm kon nañ leen jàppaat daayirab sëñ Touba bii te xam ne suñ borom mi ñuy defal ndam li tax nag suñ xool sedd mooy li nga xamante ni moom saa bu nu daayira bi taxawee rek suñ suñ suñ borom defal ñu ndam ndam loolu nag ah ñu ngi koy santewaat di ko delluwaat Serigne Touba te xam ne ñun duñ ci dara mais Serigne tubaa ci boppam moom moo ci teg loxoom kon ñu ngi ñaanal mbokki taalibe képp koo xamante ne def nga ci sa addiya wala nga am yéene def ko ci ñu ngi ñaan balaa déwén yàlla na la Serigne Touba yokk ba nga yëg ko te it am nañ ci yaakaar képp ku ci def maa ngi dogg ci sama xol sedd bi nga xamante sama xol sedd na ci maa ngi dogg ci xasida yi lu ci waay fas rek yàlla na la ko defal ñun nag duñ dara waaye lépp lu ci waay fas dogu nañ ko ci bis bii ndax suñu xol sori na lool lu ci waay fas rek maa ngi ñaan ci Serigne Touba bu déwénee nga teg sa bët waaw foofu moom egg nañ fa ndax suñu xool dafa fees fees goo xamante ni mënuñu sax a wax waaye ñu ngi dogu ci sëñ Touba lu ci waay fas rek sëñ Touba dina la ko defal ndax ci sëñ Touba rek koy dogu ñun duñ dara nañ ko ci sëriñ Touba ci bis bi ak ni ci mbokki taalibe yi sonne jàpp ko ci lépp lu ci waay fas sëñ Touba dina la ko defal loolu ñu ngi koy dogu duñ dogu nag waaye jaay nañ ko sëriñ Touba jaay ko lépp luñ ko liggéeyal ngir jaam ñi lépp luñ ci dogu rek sëñ Touba defal leen ko